sànq cinq point de presse bi yaa ngi tudd benn benn nervi benn snapper euh, kan la en fait lan la doon toppee mën nga ñu ñëwaatal si loolu. waaw kooku xam nga Sénégal yëpp ñu ngi jàpp naan dafa bokk légion étrangère muy sniper boobu ñuy wax Jérôme Bandiaky le 16 décembre 2023 samay classe yi fi jóge woon di dem Ziguinchor pour dem jaale ji la famille de Fulbert. ndax la classe 98 dañoo formé wu ci benn amicale amicale bu mag bi mi ngi tudd classe 98 tout court 98 boobu dafa regrouper les deux contingents de l' année 1998 muy la 98 1 et la 98 2 am na beneen boo xamante ni mi ngi nekk à Thiès boobu 98 1 tout court la tudd bii nag les amis de Fulbert man maa ko taxawal. boo tax na rëy na mais lu xew ci 18 bi ñun ñëpp dañuy àndandoo en masse daal di dem taxaw xeex loolu muy social ak leneen ak leneen lu mu mënti doon ñi nga xamante dañ fi jóge woon dafa am somme boo xamante ni la classe 98 ñoo ko dajale woon pour dem jaale ji la famille de Fulbert mais bi ñu fiy jógee dakaar le 16 décembre 2023 di dem Ziguinchor ils ont été suivis de Dakar jusqu'à Ziguinchor Par qui Par des nervis. Ces nervis ont été recrutés par qui Par Jérôme Bandiaki di sniper Jérôme Bandiaki Sénégal dañu am habitude naan euh, légion étrangère la jógee c'est pas vrai Jérôme Bandiaki est de la classe 2001 une mu naan 2001 une mi ngi servir au troisième bataillon d'infanterie man j'ai passé au troisième bataillon d'infanterie à la 31e compagnie muy Kansemou Djimit ak Kaolack cas boobu boo demee moom lañ wax la légion mooy lii kii mooy légion Sénégal kon Jérôme Bandiaky jaarul légion étrangère troisième bataillon mooy la légion fii au Sénégal pour ñi nga xamante ne xamuñu ko muy cancé mu jimit bi nekk Kaolack mooy la légion mais Jérôme Bandiaky ne jamais été à la légion étrangère wala kon bu mu jógee armée la fa dem mais li ñu xam ci moom mooy classe 2001 la troisième bataillon le servir troisième bataillon foofu mooy la légion te man j'ai passé là-bas à la trente et unième compagnie ñooñu bi ñu demee ba Ziguinchor topp nañu leen mais bi ñu leen toppee xëy na ñun bi ñuy dem armée ñun jamonoy Abdou Diouf lañu dem armée tey jii ñu fa nekkoon doon dem ci délégation boobu sont plus militaire que Jérôme Bandiaky moo tax li mu def yëpp ak fi ñu taxawoon di leen xaar yëpp sama gars yi dañu leen contourner ndax bu dul dara armée moo ñu jàngal loolu ennemi bi nekk na ni xoolal noo ko contourner ba ne ko dañ ni la chemin dale n'est pas le chemin de retour kon lépp loo gis ci àdduna rek combat la bu lay xaar fii di nga war a mën a xool naka nga koy contourner loolu moo tax ba ñu tey ji ñu dem Ziguinchor ci jàmm ñibbi si waat ci jàmm mais seen bakkan mi ngi woon ci xottu gerte te loolu lépp li ko waral mooy bañ mbirum Fulbert ñu wax ci wala mu leer mooy le président Macky Sall comme ni ma ko waxee léegi l'ex président Macky Sall qui était le chef suprême des armées son ministre des forces armées à l'époque Sidiki Kaba son ministre de l'intérieur à l'époque Antoine Diome ministre de la justice Ismaïla Madior Fall le chef d'état-major général des armées Cheikh Wade le commandant de la zone militaire numéro 1 Mbaye Gueye le chef de corps d'appartenance de Fulbert Sambou son chef de service la DIRPA ndax DIRPA ñoom ñoo yor kàddu armée lépp loo xamante xew na biir armée yéen xam ngeen ni DIRPA moo ko doon génnee kaawu Fulbert rek lañu gis ci senegal mu am biir armée procureur daal ciy wax kon am na lu ñuy ñëpp kon ñuy ma cité. DIRPA communiqué wuñ ci. DIRPA dégguloo ko de yow foog naa ne communiqué procureur nga dégg moom laa dégg moom la keneen ak keneen dégg kon tey jii bu ñu yegsee ba fii ñooñu ñëpp s'il n'ose même pas piper mot sur le cas de Fulbert Sambou et de Didier Badji mois je les prends des complices de Macky Sall Macky Sall n'est pas n'est plus ici au Sénégal on fait tout pour extrader ko ndax pétition bi mi ngi daw pour ñu andiwaat Macky Sall mais ñi nga xamante ni Moussa Fall aussi le général Moussa Fall que j'avais oublié ñii muy Sidiki Kaba Antoine Diome Ismaïla Madior Fall Cheikh Wade Mbaye Guèye le chef de corps d'appartenance de Fulbert Sambou son commandant d'unité son chef de service le général Moussa Fall ak ki jiite DIRPA ñooñu ñëpp man je les pour des complices de Macky Sall ndax lu day ni armée ñu doon ay chef militaire un militaire joge fi il n'ose même pas piper mot sur le cas de Fulbert Sambou donc nga fekke nga xam te dénoncé woo complice nga te loolu ñun ñëpp xam nañ ko léegi li ñuy waxaat dañoo am benn devise mooy lan on nous mais on nous déshonore pas mais tey l'armée a déshonoré Fulbert Sambou. Euh, kii mooy kan. mooy sniper. waaw kii mooy sniper. lan la ci Macky Sall parce que dañu gis photo bi dafa jege Macky Sall. waaw jege na Macky sàll ba bi yi jóge ci Coupe d'Afrique bi ñëw moom mi ngi woon fii aéroport di def ay va et vient di am nit ñu muy dugal ak génnee. ndax tey jii fépp foo dugg tey ci armée sénégalaise la classe 98 ñu ngi fa tey jii amatul soldat ñi fa des ñëpp c'est des sous-officiers soldats yi fa nekkoon ñëpp la majeure partie dem nañ retraite vendredi passé kon tey 98 desatul armée comme homme de troupe homme de bu ñu nee de troupe mooy nga commencé ko caporal chef ba soldat ñi fa des nag ñan la mooy c'est des gradés kii mooy sniper moo nekk nii kii mooy bànja Bandiaky mooy comme li ma wan jege Macky Sall jege Macky moo tax ñu jëloon ko te ñëpp xam nañ fii lépp lu fi am lu njuut njaaj ak euh, nervi yi fi nekkoon ñëpp kii moo leen doon recruter kii boobu leen recruter na la leen recruter ci ordre Macky Sall la leen doon recruter tey comme li ma la wax gëmloo nañu sénégalais yi naan. que ni euh, légion étrangère la jógee jógewul légion étrangère Sénégal fii Dakar Bango à Saint-Louis fa la defee formation au douzième bataillon d' instruction bi mu fa jógee ñu affecté ko au troisième bataillon d' infanterie muy légion bi donc Jérôme Bandiaky ne n'a jamais été à la légion étrangère fii la joge man fii mu jaar ni jaar naa fa nii la àndal en deux mille 2008 2009 dem euh, mission Nations uni au Soudan kon liñ ñu bëgg gëmloo ñun duñ ko gëm tey duñ ko gëm suba nanguwuñ ko te nopp da ko neexul a dégg ça s'entend mal lore l'oreille. nga baal ma si dagg bi mooy pourquoi ñoom pourquoi ñoom ñaar lan la parce que jamono boobu ñu ngi doon wax ay waxu jamono Adji Sarr Ousmane Sonko coow li jugoon pourquoi nga jàpp ni ñoom cible la ñu woon wala lan la ñu woon ñoom. waaw ndax xam nga domaine boobu man mënuma ci sori ndax man je suis apolitique te connaissant Fulbert on sait très bien que ni Fulbert aussi il était apolitique DJ je ne le connais pas bien xaw ma ko sax bu nekkul woon lii duma ma xam DJ mais ak nu mu mënti demee ak nu mu mënti demee ak problème bu mu mënti doon man j'aurais préféré ñu génne la unité bi nga nekk afecté la ci beneen unité moo gën ñuy faat bakkanu doomu jàmbur waaw moo gën ñuy faat bakkanu doomu jàmbur jëlee woon ko foofu afecté ko ci beneen unité foog naa ni loolu moo doon lii gën a rafet que faat bakken waaye te ñi ko faat ñan lañ. on peut dire des amis moo tax ma ni léegi on nous tue mais on nous déshonore pas mais l'armée a déshonoré Fulbert Sambou l'armée a déshonoré Fulbert Sambou nos autorités militaires ont déshonoré Fulbert Sambou euh, mais sànq yaa ngi koy wax Cap Manuel ci ginnaaw noonu si place bi ñoom dañu doon faral di nekk moom ak euh, Didier euh, di fa faral di noppaloo dallu noonu lañ mën ñu jékki-jékki rek ñu ni même côté boobu lañ foo mën a lapp wala. non loolu dafa mënta nekk. mënul nekk ndax xam nga lan moo tax mënta nekk ñoom fi ñuy nappee vidéo boobu envoyé naa ko fu nekk Fulbert ci xeer yi lay nappee te boo xoolee fi muy nappee ci xeer yi tey jii dara bu fa waddee sax même bu fekkoon da nga jël benn bouteille vide nga sànni ko fa tëj capsule bi air moo ciy nekk day tëmb ba ngay gis vague bi da koy dóoraat day dal ci xeer yi kon bu fekkoon ni dafa labee foofu kon foog naa ni vague bi da koy andiwaat ci xeer yi mais du ñu toog nii ne gis nañ ko à six kilomètres. place bu calme la sax kat ma neen foofu calme. place léegi nag ñu ni gis nañ ko à six kilomètres fii lañu wax ni lañu gisee Fulbert waaw fii à six kilomètres ak fi muy nappee kon fi muy nappee ci xeeri lay nappee comme bu fekkee ne mën na jóge fële ba ñëw ba fii te gis nga vague yi nu muy dalee ci xeer yi donc kon vague bi dafa waroon jël corps bi andiwaat ko. kon du woon yoon koor bi di def ci ndox mi du 18 au 23 cinq jours koor gi koor bi di ko def ci ndox mi du yoon waaw. fi ñu fi ñu daaneel Aba Ismaïla Madior gis nañ ko mu def benn sortie xam naa di ñàkk dañ si indi ay leer parce que moom jàpp na ni moor euh, Didier Badji ak Fulbert dañ dafa bokk ci loi d'amnistie bi passé waaw xam nga ñoom dañoo jëfu lu tax ñu jëfur ñoom ñoo wax ñoo toogaat contradiraat seen bopp te wax naa ko léegi. tey booy demee bay amnistier mbir foog naa ni crime ak flagrant délit lañ war a amnistier boo demee ba ni kaaw Fulbert ak Didier Badji dañ ko dugal ci amnistie donc yaa crime voilà yaa a crime bañ ko bëgg a amnistier mais dem na toogaat moom moo ñëwaat dellu si waat daan ne bokku ci kon nañ ñu wax lu leer ñun loolu rek lañu soxla soxla leneen lu dul ñu leeral mbirum Fulbert xamal ñu. ñan ñoo def ñu def yoon def ci ñoom la mu war a def te ñun la classe 98 c'est ce qu'on réclame la lumière et la justice soit faite pour le cas de Fulbert Sambou euh, bon xam naa nag euh, dernière question mooy moom xëy na rëcc féewu na ci face page Facebook am ñu lapsus la est-ce que gisuñu dafa wax ba mu yàgg doo ko comprendre tole bi ak coow lu mu indi muy ni xaaral ma rëcc féewu waa xam nga boo defee booy wax doo ko tey moom la mu wax noonu la mu njëkk wax ñoom seen xel lañu yor ñun suñu xel lañu yor di xalaat yàlla moo ñu sàkk ñun ñëpp ne taaratul xal bi laabu xol kon ñoom seen xel nu mu laabee ñu jàpp seen xel moo gën a laab suñu xel dañuy nax seen bopp ñoom ñu ngi foowee seen xel ndax mënoo tëb nga wax benn wax ba pare ëlbatiku waat ne question bi dalaa bett man su may ñëw fépp fu may dem je me prépare à tout damay préparé wu ci lépp donc ñoom ñu bokkoon ci régime Macky Sall fu ñu leen mënti woo plateau bu ñu leen mënti woo rek ñoom nañu xam ni danañ leen poser question sur le cas de Didier sur le cas de Fulbert sur le cas de Mankabou sur le cas de tous les victimes de l'ex-régime kon loolu ñoom dañ ko war a préparer xam ko mais boo gisee mu daal di wax loolu ba pare ëlbatikuwaat contradiraat ba ko wax leneen c'est parce que ñun la mu wax la ñu jàpp te la tax ñu jàpp la mu wax crime la ñuy amnistier boo demee ba ni boole nañ ko ci amnistie bi rek c'est parce que y a crime léegi nañ ñu élucider le crime boobu wax ñu ñan ñoo rey te ñi rey ñun xam nañ leen du ñenn ñu dul ñi ma la limal tàmbalee ko ci président l'ex président Macky Sall parce que il était le chef suprême des armées le premier militaire kon ñi ci des ñëpp ay complice u Macky sàll lañu ñoom ñoo rey Fulbert ñoo rey Didier léegi nag ñun li ci des mooy li ñuy ñaan suñuy autorités yi fi nekk nii actuellement muy le président Bassirou Diomaye Faye son excellence le chef suprême des armées que ni dossier Fulbert bi nañ ci ubbiwaat enquête def ci li ñu war a def di woowaat tamit son premier ministre monsieur Ousmane Sonko wax naa ko léegi Ousmane Sonko ak Fulbert Sambou ñoo jàngandoo ci benn école MST bu Ziguinchor donc Fulbert était son camarade d'école xamante nañ bu baax kon nañ ñu leeralal loolu te nañ ñu ci jàppale ndéem ñoom ñoo taxaw daal di woote jub jubal jubbanti muy slogan boo xamante ni sénégalais yëpp ñu ngi ciy dox te man dafa doon slogan boo xam ne dafa ma neex kon nag jub nañ nañu jubanti li nañ ko leeral léegi nag ñoom jub jubal jubanti la wax ñun la classe d'habitude 98 dañ ne na leer leeraat gën a leer waaw dafa war a leer quoi ci nopp ñëpp ndax victime yi bari nañ ba ci yéen taskatu xibaar yi ci victime yi ngeen bokk bari na ci ampagaay yi tey fi ñu toogoon y le président Boubacar Sèye Horizon Sans Frontières président de collectif des victimes de l'ex-régime de Macky Sall ñoom ñëpp ñu ngi fa woon kon lii dafa war a leer naññ dañ ko war a leeral mu daal di leer yoon def ci la mu war a def bu neexee yàlla dinañ am gain de cause incha allah te lii dafa war a leer ndax bu leerul suba dina dal keneen ak keneen ak keneen te bu boobaa duñu am fu ñu ko jooyee ñi fi nekk nag loolu lañ leen di ñaan muy son excellence le président Bassirou Diomaye Faye le chef suprême des armées on a servi notre pays dignement on s'est engagé dans les forces armées de 1998 jusqu'à nos jours Fulbert a fait presque 25 ans de service on a écourté sa vie Fulbert travaillait pour subvenir aux besoins de sa famille il avait des enfants et même des jumeaux. Il voulait que ses enfants aillent dans de bonnes écoles. On a écourté sa vie, on l'a assassiné, on l'a tué. Donc on doit lui rendre sa monnaie. Il a fait ce qu'il devait faire. Il a fait ce qu'il devait faire. Ce qu'il devait faire, c'est quoi S'engager, se porter volontaire, s'engager dans les forces armées, défendre les couleurs du Sénégal partout où il était, dans les missions des Nations Unies, dans les théâtres d'opération en Casamance et le monde. on doit au président de la république à son premier ministre. bàyyi la nga tàggatoo euh, daw na yaram nag mais ni ñaan yàlla yoon daal di am parce que comme ni nga waxee am na ay jumeaux am na ay njaboot bi mu njaboot gi sew donc xam naa nag euh, ñu nga nga tàggatoo wala dafa am loo waaw xamal la ni Fulbert am na ay jumeaux Fulbert am na Jean Alex Wilfrid Sambou né le 11 octobre 2003 Fulbert am na Rose Amina Ñakkan Sambou né le 3 novembre 2020 2006 Fulbert am na ay jumeaux kenn ki mooy tudd Edwige Lucia Claude Sambou né le 16 octobre 2010 keneen ki Eddy Junior Sambou né le 16 octobre 2010 Fulbert ñu ngi ko porté disparu le vendredi 18 novembre 2022 ñu déclaré ko décès le 23 novembre 2022 c'était un mercredi enterré ko un mardi 29 novembre 2022 à Dakar au cimetière Saint-Lazare mais comme ni ma wax léegi ki ñu suul Saint-Lazare c' est pas Fulbert Sambou c' pas Fulbert Sambou lu tax c' est pas Fulbert Sambou wax naa ko ci njalbeen chrétiens yi dañuy exposer seen corps pourquoi ils n'ont pas exposé le corps de Fulbert dafa nekkoon ci décomposition avancée pourquoi suulu ñu ko ci plage bi ndax ñun xam nañ ni décomposition avancée ci plage bi lañ lay suul tey plage yu yoof bi ba jàmmalaay ba foo jëm ba ci petite côte bi ñaata tomb nga fay gis bari na mais boo mënee dem ba jël corps génn ko dugal ko ci ambulance yóbbu ko dugal ko ci morgue congelé ko fa le 23 ba vingt 29 nga soog ko génne ñu dem enterré ko kon kooku waroon nañ ko mën a autopsie kon décomposition avancé boobu ñu ñuy wax gëmuñu ko te bu ñu bëggoon lu leer ba ñu tegee kooru Fulbert jabaram daa di ñëw ay nitam ñëw ay mbokkam ñëw dañ leen waroon wan koor mais waruñu leen ko wan par téléphone kooku ku mu doonoon ci ñun tamit da ngay buddee da ngay dem sa yoon sa doom du gaañu wala sa jëkkër wala sa papa ñëw ñu la koy wan par téléphone loolu amul fenn identification la lañ def da ngay dem ba ci morgue ñu ubbi la tiroir bi nga xool nga ni moom la wala du moom mais par téléphone loolu yëpp amul beneen bi mooy lan Fulbert chrétien la xam nañu chrétien seen dëy corps bi dañ koy exposé pourquoi ils n'ont pas exposé la corps ba affaire bi amee Fulbert fa mu dëkk ñaamul ay mbokkam lan lañ waxoon nañ leen jox koor bi ñu waxloo koor bi mais foog naa ne bu ñu bëggoon lu leer dañuy joxe koor bi ñu waxloo koor bi ndax man wax naa ko ndax man gis naa loolu en Casamance nekk naa fa ak gis waa joo xamante ne dalay romb di dox du nuyoo il ne parle avec personne bi ñu laajtee dañu kii dee na mais dafa am lu ñuy xaar pour def enterrement bi kon ñoom bu ñu nee mën nañ wax loo koor bi loolu mën na am mais boo bëggee set ci tuuma da ngay lu tax defuñu loolu pour ñu set ci tuuma ndox bu leen joxoon corps bi nañ wax loo corps bi wax lan moo rey kii ak kii mais bañ nga loolu exposé woo koor bi amul autopsie amul dara loolu nag dañ ni man sama wàll bopp man Babacar Diouf Abakra classe à feu Fulbert Sambou je dis que ni haut et fort que ñu suul Saint-Lazare c'est pas Fulbert Sambou nan ñu wax nan ñoo rey Fulbert Sambou kenn ki ñuy njëkk joxoñ baaraamu tuuma mooy le président Macky Sall qui était le chef suprême des armées ñi ci des ñëpp nag ce sont ses complices Macky Sall n'est pas là mais ses complices toujours ici ay complices a ngi fii kon nañu wax ak ñooñu xool naka la ñuy def nag pour escrader Macky Sall mu daal di ñëw andil ñu compte yu leer ci victime yi fi am yëpp plus particulièrement sur le décès de Fulbert Sambou et Didier Badji et Mankabou aussi waaw. merci beaucoup waaw jërëjëf euh, Ousseyn ñi ngi gërëm euh, waa seen teraanga yëpp. di leen ñaanal jàmm di ñaan jàmm ci biir Sénégal te lépp lu ñu sóobu nii tamit yàlla na ko suñu borom euh, sottal ci barke sëñ Taïba Fall. jërëjëf